lu am lu am si lamb fan yii dañ koo ñaawlu ñun bëri quoi supporter daa a a noobul parce que lamb ñun si la ñuy dund quoi yéen si ngeen dund supporter si la ñuy dund jaaykat yi la ñuy dund di wax ni nañ rafetal lamb ndax lamb ñu ngi koy ñaawal fu ne am na ñoo xam tey bu sonoon lamb arrêté kon supporter yi dal ku si wóol sa mbër jaru nga yàq lamb Papa Sow Siteu ay ay ay naataango la ñuy day métti xaalis rek maanaam ndam génnul. Sénégal la yem kon nañu rafetal affaire sama mag Balla Gaye 2 moom tamit kenn du moom lépp moom la sama gars yi ma àndal ñu ngi ne si ginnaaw yow xam nga Sakes Bamba xam nga Sakes Abdou Ndiaye sama rakk Ndiaye Waalo Tafa ak Talla maa leen sant leen ñoom laa àndal di woon caatu ko la ban nga xam ne jël la combat. di nga ko doon. egg ku si. ayca mbër nuyu naa. fay naa la Ndiaye. Doudou Bakassar waaw. fas yéene laal. Ama Junior rek di Bacheras. Ama mel ne a xeex. loolu xaw ma ko de yaa nga xam. mën a bëre. ba tey ma loolu yaa nga xam. bari gàllaaj. xaw ma ci dara. dinaa ko xeex. aduna laa jàpp de maa dàq xeex maa dàq bëre lamb ji. lamb ji yaa aduna kay laa la wax maa dàq bëre. Bombardier aduna kay jeexal nay wax. ak koo lima koo limul naa ci yemale nag. Ama Baldé yaa booy loolu garaaw na de. ah xam xam li nekk si man moo tax. yàlla na yàlla dooli dooli sutura rek. ku dàqat bëre turandoom da ji bu ñëwee da koy jaar jaar. dégg ma le 16 incha allah na waa bool ñëpp ñëw feesal stade bi waa ñaar dali jóg ma daan ñu ñibbiwaat ak jàmm waaw ah, da ci woo suñu maire maire Pape Sène yow ma fayam ci benn yoon sama fan si club bi yëpp président yu Baye Sall Diagne. ñoom Daje Ndiaye Aliou Sarr Seri Aïssa ñoom Mbaye laay seen bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp maa leen di woolu sees bésu am la waruma ci juum bëgg naa la na fay nañ la bàyyi mbër sawaay nee na moo dàq bëre Ama Baldé moo dàq bëre Modou Lo moo dàq bëre Balla moo dàq bëre ci làmb ji yow moom mënoo koo di sawaay daa kontaan di wax lu mu réeree moo neex quoi reer na lu mu réeree daa neex moo tax muy wax loolu ay waxul dof rek lay wax moom muy wax. mais yow yaa ko mën. maa bu doole maa ko gën a nekk xale. ma doon mil kees ma si gaal gi ñun ay mool lañ ay nitu géej lañ parce que maam Seera Fall ma koy jaaree ma si gaal gi. billaay wallaay wataala. nee moom moo la ëpp gàllaaj moo la dàq bëre moo la dàq xeex moo la dàq lépp. bu jour le 16 janvier loolu dina leer man instant yii ni ma wax barki yàlla mais bëre bi ni grand frère yi moo ko jaabee damay faxas yàlla kii du ma ak moom nga ne. man maa ngi nekk Igri Bac Seras. waaw. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama quatrième combat. waaw mooy loolu instant yii nii gën a xam bàyyi deux victoires deux mooy loolu. da nga fas la. waaw noonu la demee nag. naa boo ko jaamee dama faxas. billaahi wallaahi wa taala. la demee yow Modou Mbaye mooy loolu barki yàlla. billaahi yéen am leen jàmm nag. jërëjëf dof lay wax waa. jiile bu la ma Modou eh, gaynde siyaar naa. maa ngi lay siyaar bu wér. maa yaa am jàmm. sant bu wér. boo fas yéene laal. Rambo bu tënkee. ñukk sa poos bi de laal la. non xaalis laay génne mais waaye maye. géwél moom da nga leen di dara. waaw waaye maye xale. géwél ci làmb lan la loolu lu muy waaw parce que mu ñoom ñoo ñuy xamtal quoi. te tey yoon bu nu wooyee ba njëkk suñu bopp ñoom teral leen waaw. moo tax fas yéene génne sa koom-koom. may ko ba mu neex kay. xale xale ba mu xaalis. waaw am naa xaalis am naa dama ma ko gisagul xaw ma lu ko téye dina ñëw. moom lan la. moom mag la paa yooyu la. Ah, waaw. soixante-quinze ans. moom kay moom kay la daal moom daal ko mooy loolu daal. ah. ngeen fas yéene laala yéen. waaw daan kon du ko xeexal. du ci bari. non monsieur du ci bari dama doole laa wóolu xale. non non ko yëngu du ma ko daan jël bu waaw yow ñoo fa réew naka si jàpp. maa lay fay. sant yàlla bu baax. montagne. montagne mel ni bi waaw. montagne non non. non non daaneel. non non waxul lu am. montagne yaa ngi fépp. waaye bi bu assuré bi la quoi taxaw xeex moom wala nga taxaw bëri. doomu Yoff lu ma a wax xam nga laa ko ñaanal jàmm laa ko ñaanal bis ba laamu ji amul lu dul wax rek la ci am wax kese la ci am yéen a gën a xam kuy kii wax kese la am ci laamu ji boo amee ne prép ay moo xam ñaaxu ko al bi da fi bàyyi si lépp al bi da ko fi bàyyi du maag doomu Yoff wallaahi du maag moom su ma si su ma si jugee di nga xam ne du maag moom non dañuy liggéey rek te foowuñu laamu tax ñu bàyyi lépp waaw lépp mu laaj ko ciy def noonu na trop li si ay 3 millions 4 millions ak loolu barki alxuraan jaaxaanu ma de damay làmb billaa walaay xaalis bi wax tal laa si def wóor na Serigne Touba c'est pour c'est pour jour ba damay làmb incha allah. Ousseyn fay la bu baax a baax. ndax ba jili mbokkum yaay Ousseyn. waaw la bu baax. ju bari alhamdulilah sant yàlla baax. caatu montagne nee na moom moo fa xam yoof amul montagne dalay jàpp yenn ba ci kaw dóor ci yoof moo jur ndakaaru te montagne si ndakaaru la bokk yoof moo jur ndakaaru ñun ñooyeen xajal ñu dëkk wax ji wax ji fii la rek mais buñ duggee si biir géej bi may dirigé fu ma ko jaarloo fa lay jaar xeex damay bëre doomu yoof setaanal samay combat li muy wax gëmu ko wax gëmu ko Samba Diop xam na ne gëmul li wax ko mystique bi bëri na mu ne def na ci 3 3 millions mi amoo 3 millions. yàlla sama ñaanu waajur laa yaakaar sama ñaanu waajur laa yaakaar. Eh, moom tamit yaakaar na ñaanu waajuram mais daa am réalité làmb mooy mystique. Warga Sador li ma may. Warga Sador 6 millions la ma may Aziz Ndiaye. Hmm. ah Baye Ndiaye 6 millions lañ ma may si combat bii nii. kon ay millions mooy di gërëm waa Colobane Balotisi ma ngi oo bu baax a baax di oo waa Thiès bu baax baax di oo Abdounaar Diouf Sarr Birame Gningue Moustapha Tall di oo ñëpp di oo waa Yoff bàyyiwuma kenn di ko wax ne max moom ku dàq bëre yàlla na ko yàlla ndam. loolu de gëm sa bopp la. mbër nuyu naa. fay naa la. waaw maa am jàmm wér. teg choc. laa euh, birsuli. waaw moom la moom laa war a laale. mi nga xam ne combat bi mujj fii stade Diop Iba Mar Diop daa dóor mu daanu. waaw moom dafa dóor mu daanu man dama def lu rëy waaw dama def lu rëy waaw boo seetaanee top 5 bi man maa fay lëmbee fu mu top 5 top 1 top 2 waaw depuis boobu ba maa ngi top 5 waaw moom. non balaa ma yóbbu incha di nga gis lu garaaw. billaay wallaay lu garaaw ngay gis laa la wax yàlla xam na loolu. lu ñu def ko. dinaa bëre dinaa xeex. waaw yéen rapport yéen journaliste yi di ngeen am lu ngeen rapporté incha allah ndax mbëri bu ñu rek seen liggéey feeñ te incha allahu rabbi sama combat bu leen ko allah. non di yuuxu. di yuuxu. jël bu rëy rek ay wax maa la ko wax di ma allah jaajëf. incha allah. laay biri sili bis li sa bi mujj fii da ngaa dóor benn xarit mu daanu ba man sax damaa daanu waay. non ma waroo daanu parce que Baye Fall nga loolu lancement la rek am yeneen yu ñëwaat am yeneen yu ñëwaat parce yaakaar naa laay brisili koo xam ku ne xam na bërekat la du ma xeexkat mais damay sant yàlla bu baax a baax waa di ñaan yàlla mi may ndam yàlla si kaw teg soog. soog nee na moom ñeme woo taxaw xeex moom ñeme woo taxaw moom bëreeg combat yi mu ñu ngi topp say génnaguñ. waaw su ko neexee mais le 16 day xam ne maa moom maa moom laa mu boolewuñu le 16 maa ngi Tek-Sok laa mu boolewuñu tek nekk sama yoon rek man ma koy faxas jàll. man jël bu rëy rek moo mën a tax ma yuuxu mu ne moom dina ma yuuxu loo yow di ma yuuxu loo. non day xaar Tek-Sok mi maa moom bu ñu simee koo dina xam ne laaj bi bi mooy doolee mbaam xuux xanaa xanaa si ma noonu man maay doolee xuux. doole Mbacour nu muy mel. doole Mbacour tala seet yi si xam dara di ñaan yàlla mi may ndam yàlla mu di woo waa Kër Mafal ñëpp nag di woo commune commune commune commune Mbao bi quoi xam nga dina ñoo jàppale laaj biir si li waaw parce que làmb ji nii soxla naa si jàppale quoi waaw ñoo far waa dëkk benn dëkk ñaari kay. ñooy fa Thiès kay. ñu ci jàmm nga jël. xam naa ko nii rek. Forza Bouss xam nga ko nii rek. waaw. yaay kan. ah. yaay kan. man maay Boy Jaxaw man ñëpp ma xam. Boy Jaxaw combat bi mujj arène nationale nga bëree. am moom am na 4 KO. ci biir 5 combat ci biir 9 combat xaw ma. am 5 victoire. yow sa bopp combat bi mujj avant ngay bëree da ngaa dóor mu daanu. yéen ñaar ñaari kaaw ñaar ñoo xamante ne kuñ jàpp kaaw la lan ngay wax ci moom sept combat man bi mooy sama quatorzième combat waaw kon yamuñu sax ñi ma bëreel bëreewut ak ñoom sax at bu bees bi ñuy dugg la 16 incha allah George dina dégg muñal bu neexee yàlla ak bi te man maa koy jox suñu borom daf maa jagleel si bu daanogul loolu laa bëgg mu bàyyi si xel bu baax gisuma ko dina ñëw ah dina ñëw kay dina ñëw. mais bu ñëwul fii daal dina ñam moom dina xeex dina bëre. Ah. waaw man du ma maye dara. te am nañu gan. Jaxaaw ñëw waaw am nañu. ñooy fa. mooy fa ñu ngi si ñoom. ñëpp a ngi fa. Ah, ana ñeneen a bëre le 16 moom tamit fii Iba Mar moo ko armé waaw. waaw kay léegi ñaari ndam la soxla ñu yóbbu ko Thiès incha waaw. alay fay. style bi daa mel dafa sax. waaw. lu tax loolu. lu bees moo war a ñëw. le géant du Cap Vert. boole xale boo xamante ne wex xatt lay def buddi ba ci kaw dóor ci ñun Cap Vert la ñuy waree incha allahu rabbi dinañ ko daan ci kàttanu yàlla Boña 2 incha allahu rabbi mu mën a bëre incha allahu rabbi mu mën a xeex incha allahu rabbi mu am gàllaaj incha allahu rabbi dem li traditionnel di buddi ba ci kaw dóor ci suuf bu soobee yàlla bu dee li ngay wax ni yëpp yàlla moo koy maye dinañ am ndam ci kawam xam nga Koña xam naa ci moom xamul làmb rek mais soxlaa ma koo xam ba mu jeex ndax moom mënu maa xam kon mënu ma koo xam beneen tàkkusaan la rek ma defaral ko ñu dox. xeex ak bëre ban moo la ci gën. boo ma xoolee tey xam ne damaa ñëwee beneen facette. looloo ma jaar kap gis nga li nekk sama ginnaaw. wallaahi may ñëw li ma andal convoi moto mën na 30 moto ngor ñëpp a génn Cap Vert dañ maa yaakaar waa tànk dañ maa yaakaar te incha allahu rabi à partir de bu bees le géant du Cap laa xeeb ñu ànd ak Koña dañ laa xeeb. man ku may xeeb si ginnaaw saako yi nga may xeebee mais bu arbitre yee barrière yi xam ka moo xeeb moromam. damaa gis dafa mel ni da ngaa yëg ko état de forme bi. bi nga mujjee bëreeg ba euh, caatu yëmbal ak léegi du benn. dañuy liggéey nekk ay xale nekk suñu ruq di liggéey te bu jour waa bu ñëwee bu ñu suñu xam ne xeer màgg na incha allahu rabbi beneen xeeru ngor ngeen di gis kàttanu yàlla. waaw Adama moom kala. kooña. bu bu ñëwul moo xam mais dina ñëw bés ba. force dina ñëw mu ñëw. bëgg a ñëw ñëw bañ ñëw ñëw. bëgg a xeex xeex bañ xeex xeex ba bëgg a bañ bëree bëree daal bi day sifflé. lépp lu mu laaj dinañ ko def incha allah combat bi combat bi daf ñu jaral bilaay daf ñu jaral te bu jour ba dinañ xam ne combat daf ñu jaral. Ngor numéro 2 la. ndaanaan la ci làmb kaay. mbër nuy naa la. fay naa la. Ndakaaru Ndiaye jël. na bi. yaay wooy. Ah, ah. dafa leer. noonu la demee nag waaw dëgg baa ngi nii rek di saloon rek di sosé. laale ko caatu ngiwél lañ koy wax je pense. waaw. waaw loolu laa dégg de ñu ne dafa xeex. waaw loolu laa dégg de. loolu laa dégg de. waaw loolu am na. yàlla da ko baaxel mais le 16 janvier yàlla ma la koy baaxel. dinaa xeex dinaa bëri te dinaa ko jaan jël bi est est lii nii bu extraordinaire ba pare ñoo si yow. ñëw déggoo ma de dama koy daan jël bu rëy ma ñëw ñu wasaare ko fi yëpp ah. waaw jeex na. ma ñëw ma ñëw. waaw. mu def nii yàlla moo fi nekk wul laal sa ngemb man maa la mun ëpp la doole yow te bis ba dégg ma de paa bi moo lay woon fooy toogee Mouhamad ñi ma ñooma yow ñi ma ñooma eh yow su ma la jegee da ngay raf mama ni ma xool ma xool ma billahi ñi ma ñooma eh, barke alxuraan faas faas adversaire yëngu na nga di ñemewu la foo teg billaahi ñeme ñu ma. la. booy Dakar mi. billaahi booy Dakar ñeme ñu ma. tey ca àggee di ngeen xam ne kii ñeme ñu ma. ñeme nga taxaw ma dal si kawam. bii ma dal si kawam. moom booy Dakar. kii ndaama la. njool de. waaye njool tamit njool laa la wax. kii ndaama la manuma man képp ku ma sut laf maa la man kii maa ko man dama koy daan incha allah. yaa ko mën xeex wala yaa ko mën ci bëri. bàyyi ji bu bëggee ñu joxante baaraam ba pare ñu xeex xanaa pare naa. du pare nga bi bëri na ci yow ak moom. non yii ay yu nu sanu ay mbokk jox la rek mais li duggul si ba maa ñooy des si ba. nga bis bu ñu fa dajee doom dina neex ndayam incha allah. kon le am yaa koy def. non man fi am sax fii. lu si man de yàlla la. waa Yoff ñëw na sama booy yàlla. combat la bu soobee yàlla. yàlla na nu yàlla defal jàmm ba bés ba. di wax nag waaw. Euh, sanu tuuru maam Jaara daa war a muy le 10 ñu siy woo waa Yoff yëpp di leen wax ne ñun amuñu lu dul maam Ndiare di taalal suñu loxo waa njabootu wax li bay turo di leen wax ni combat bi seen combat la xam nga booy Dakar nag dafa yaradiku mu ngi may saaga quoi mais garaawul man dinaa ko wan ni saaga yàkkamtee xeex la incha allah. maa ngi am jàmm bu baax. jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël cité. buuru Ndakaaru. buuru Saalum nee na buuru senegal sax bu ko ñemee ñeme naa wax ni moom xam nga lan la la wax ay wax yu bëri yoo xam ne ne ko bu nekkee buuru Saalum man maay buuru Koumpentoum yow mi waaw waaw kon ñaari buur ñoo fas yéene ñaari buur ñoo war a war a laalante te kenn rek moo mën a doon te kenn rek jaxaaw na leer di ngeen laal nan laale bu baax kay mandat bi day am problème Assane Ndiaye lu muy def loolu du ko quoi mu ne suñu centre bu mu woo ma ma ñëw fii te suñu centre mu loolu est-ce loolu yoon la yoon la yoon la. mais est-ce que nekkul dafa doon ñëw pour présenter leen. solo bu suñu taxaw nii rek wante wuyu ma waru amul droit wuyu ma woo ma fi wuyu ma loolu dañuy di ay problème quoi ndax CNG dañ ma naroon aj loolu indi ma yeneen problème. CNG dañ waaw ci lan. ah ñoo ma si ñaanal ci waa CNG ñoo ma si ñaanal yow bokkoo ci est-ce que woon jéem a sauver bis ba ngeen jàkkaarloo ba pare CNG bi luñ ciy wax ñu doon jëm. non loolu seen problème la ma àndal ñu ma àndal daal ko muy ma wax nañ lu may dégg loolu rek laa mën a loolu rek laa mën a disir essai yi Assane Ndiaye daal lu nu fi ñëwoon gis nga promoteur waroo def loolu yaa ngi dégg sans ménageur moom tamit daa waroon ñëw ah su ma wuy ma xam fu ñuy jar ak fu ñuy wante bu toggee fa ñëwul fi loolu day indi problème day indi problème quoi ok kon ay problème kayit kay man daa ma légal légal complètement. est-ce que promoteur bi bi seen. loolu nag loolu nag mu erreur am la wante moom joxe na avance su pare joxe na avance naa ci yow. di bëggee sama gars. Dakar wala borom jamono rek mu tënk lépp. ah waaw. koy bëre. Malem Nialy. ko. waaw xam naa ko nii rek parce maa ngi gis ay maa ngi koy tay mooy loolu. yaa ngi doog a gis ko dinaa la dóor ba nga yëg. waa xam nga man mën naa bëre am naa doole xale laa man naa xeex comme nga moom nee nañ dóor la ma ne dama ko bëgg a fekk si dóor yi duma ko daan ko incha allah. Ah? dina yomb. ah bu yombul si moom la dul yomb rek parce que man moom dina yomb si man ndax dinaa ko duma dinaa ko daan incha allah. xam nga malam ñaani bu baax. waaw moo li ma la wax rek gis naa ko si ay vidéo gis naa ko tey jëxërën. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama neuvième combat huit victoire laa amagul ak bii nii muy neuf incha bi. parce que dañoo yaakaar ni da nga retard ci làmb xaw ma da nga gëj a bëre wala da nga gën a concentré wu ci li traditionnel bi ba tax nga toll fi waaw man nag ndaw laa comme li ma koy waxee rek 97 laa juddu dara rëccaguma xale bu ndaw laa juddu 1997 am 8 combats 8 victoire xam nga nekk si lutte simple bi tamit di si bay sama waar yàlla di ma suturaal di ma si wërsëgalee may lekk sama wërsëg xam nga kon dara rëccaguma daal damaa jàpp dara rëccaguma te li si kanam raw allah yéen ñaar bëre ak xeex ban moo la ci gën a man bëre ak dóor yëpp lañu wax xeex bi arrange na ma bëre bi arrange na ma mën naa ñaar yëpp. sànq da nga xool am na loo ko wax mun na ma koo mosal. dugg si mu saaga ma ndey man ko duñ duñ yegg si ay saagante parce que sport la sport moom xam nga respect de see war a jiitu duñ fi nekk di saagante mais dinaa la wax ni duma sa morom su ma la jàppee dinaa la duma naa la daan waaw. mooy loolu. ngeen fas yéene laale le 16 janvier. waaw incha allahu rabi bis buñ si laale rek baax na maa en daal dinaa ko duma dinaa daan di profité di nuyu sama supporters yëpp ñiy bëggee Toubacouta yëpp ak ñi ko bëggewul di bëggee làmb li maa ngi si woo quoi di woo waa campement Sindia Mbour xam nga Diass euh, euh, Ngëriñ Ngëriñ séeréer Ngëriñ Bambala Somone Ngapourou. xam nga dugub ka tent baab zone Dior yëpp maa ngi leen di woo Kër Moussa Aan Taaxum Ndioufène Njarmeew Kër Maliba Kër Songa fépp maa woo daal waa zone Dior yëpp waa tent baab ñoom ñëpp uh-huh. di woo waa Saloum di leen bëggee bu baax a baax nag jaayëf. man mooy Baba ndew ndew. ndew koy bëre. waaw laay bëre. ngeen dend yéen ñaar. laay waaw non xaw ma ko. yu benn poxus la rek. ndax ma jël ko. fii nii ah xanaa ñàkk adversaire rek. mu ngi ñambi ñambi rek de daa mel ni da laa xiif de. moo day suux rek pataala pataala. ci pata bi waaw. bu wax entraîné wul. kii nii non fii entraîné wul lu mu waree. bu entraîné woon du toll nii. toll nii. bilaay dama koy jàngal bëre. am na si dara. ak doole duñ benn. du benn ndax ku liggéey. waroo mel ni. ay ca kon baax na kaay. siyaar na la sama yaram moo tàng sama yaram moo tàng nee na sa yaram bu tàng du dara sama yaram moo tàng xale la nee na moom moo la ëpp doole moo la ëpp doole fuuf kii paa la nee na yow entraîné xale bu ndaw la nee na sa yaram bi nu mu toll 95 ans judd xale la ba nga doole ma doon leen xale. billaay nga yëg maa xam doole fuuf. billaay wallaay maa xam doole maa daa ko bëree maa daa xeex. xeexee dama koy mu daanu. mu rëy. maa ko maa ko mu doole billaay wallaay. yàlla naa suturaal dafa ñun ndam seetu gi si barke Seydina Mohamed ay maa ngi yaakaar si ñun. billahi wallahi mbooloo. bi mooy sa ñaata combat bi mooy sama am na deux victoires benn match benn défaite sant yàlla bu baax nag sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax. xaw ma ko. boo ko xam. bu ma ko sax xam benn combat la am dégg naa bi mu yokk di woo waa Guédiawaye yëpp waa Guédiawaye yëpp waa Waruwaay waa Gàddaay waa Massi Ndiarème waa Kafaga kantin ma gaay balaa Baye Fall ñi ma àndal Ndaama Pagala Abdourahmane duñ bëggee gaay yëpp laay barki Serigne Saliou bi ma yaakaar si kattanu yàlla suñu borom jour lamb ja incha bu neexee yàlla suñu borom maay bëre maay xeex maay daan maay indi supporter si kattanu yàlla gannaaw combat bi du ma yóbbul dara. si kattanu yàlla suñu borom. bëgg naa la. waaye maa lay bëggee ba jiri borom wasaare. nice waaw. alhamdulilah maa indi tey Thiès sax. waa tey signature moo nu fi andi quoi man ak njambaan di woo bool gépp di woo képp kuy bëggee carrière di ñaanal ñëpp jàmm di wax ñu préparé lii suñu combat capital la. képp kuy bëree carrière nas jàpp xeebuñu kenn xeebuñu juróom yeeg ñaar fukki yaa ma gën a xam nas ñëpp jàpp combat bi suñ combat la boo xam ne moom lañ gën a bëgg suñu carrière na si ñëw ñëpp ñëw jàpp barke Cheikh Rafal. Jëmbaan dafa jàpp ne yow jaarukaay nga quoi day jàll rek jàpp. Jëmbaan dama koy sant bu baax bu mu jëlee combat bi man cinq adversaire lañ ma wutaloon ñëpp delloo ko am na ñoo xam ne jëloon nañu avance dañoo delloowaat avance bi pour mu jël combat bi rek ñett naa ci 47000 sarax yu ma gënee bi mu ko jëlee bu baax. barke Seera Fall dama koy ñaanal rek yàlla may ko fekk ak tal mu ñëw suur bi. kon da ngaa a wax ñëpp a daa répp moo tax mu jël. non combat bi man damaa naroon ba année balance kon su ko jëlee dinaa ko sant bu jëlee avance bi dama koy sant bu baax parce que sax avance bi jafe woon na pour ma am combat mais comme combat bi taxaw na rek wax ji la si am dama ko bàyyi ak wax ji ba bés ba ma jàpp ko duma ko daan kaay arama dool yow yëpp nga yëpp nga yow barki Sëñ Fallou Mbacke xale bu ndaw la yow ko daan yow ko daan yow ko daan li la jël la xamoo yow da ngay monté fit yow da ngay monté fit ba arbitre soufflé di ma abalew ba arbitre soufflé xale bu ndaw ngay waxal boo dina am ci man yaakaar barki Serigne Bamba man kee yow da nga am ci man yaakaar yow nga daanu boy sax ma daan yow yow ki gën a teel moo daan yow na nga taxaw na nga taxaw entraîné wu ma bu ma lijjatee bu ma lijjatee dana ñëw sume yow nga dem pare de nekk laskar goo xam ne waaw bu sumee da nga taxaw nga am doole ko ba bi doole bul mën a fit man maa la mën maa doole bul dof bul a fit xale ngay waxal lii nekkul ci yow war gëmal sa yow doo gàtt. pour que yow nga jël combat bi. dara xanaa lu mat 45000 pour nga jël da ngaa rëpp moo tax nga jël. man mi saraxe mbaam xuux nag pour am combat man mi saraxe mbaam xuux nag kii maa doole kii yow la nga jëmoo fi mu dugg baawul barki sëñ Bamba bu ñu arbitre soufflé mu do abal ma. ma xool sama kanam ma sama benn combat baaxul maa ko gën a tënk fop dama duma dama koy duma. bëri ak moom waaye man a bëri combat neuf combat neuf combat laa bëri xoolal de. fépp ko toj. kuu man kuu kii tàppale kii àdduna suul bu yóoru. dañ koo yónni yàqam. man géej waaye yëpp a ma yàqam da nga wax dañ laa yónni man baax na baat bi gën suñu ki maa gën a saf lamb ci day waa yaa jëf sa bopp ni xale yi yaa saf mag yaa saf sax réew. dëgg la dëgg la mais noonu la yàlla bu defee lenn li ci yow da nga rek ba pare xam nga waaw seere ko seere ko xam nga tey succès yombul am na ñu koy am jaare fa yàqu waaye am na ñu koy am nag jaare fa baax. waaye Sëñ Tuubaa daf maa boole si ñi nga xam ne nag dañ faa baax kon maa ngi sant Sëñ Tuubaa bu baax a nga ñëw senegal journée bu mag am dimanche dox ci diggante Tapha Tine ak booy Niang en tant que koo xamante ni mbër nga boo ma doon analyser ci combat boobu loo waaw lamb lamb la boo xam ni neexul xam neexul gis parce que booy ñaa nañ buñ ko xeeb nim noonu doole ji ëpp na noonu Tapha Tine tamit du ngaaka. te dafa am fu mu jógee am fu mu dem gis ay moroomam di lekk ci millions yi mu toog benn place rek xale yu ndaw di ñëw di jaar ci kawam rek di jàll du nangu loolu te Boy Niang tamit day bëgg am ndam parce que bu dul dara Ama dafa daan tafaati te Boy Niang ak ñoo bokk koñ bokk dëkk bokk gox fépp bokk fay représenté te Boy Niang loolu du ko bëgg tey daanoo daanu moom boo doon la mën a bëree ci kaw xeex moom sàcc ko ci suuf noonu la mën a bëree moom ak déplacé wu fexe ba Tapha Tine topp ko waaye Tapha Tine muusee bañ koo topp écran ko wàcc ko ci suuf jël la ko tàllal ko teg ko ci kanam gi dina métti trop. Tapha Tine mën a def li mën a def mooy wàcc ba ci suuf taxaw samp wàcc ba suuf jël loxo bi laa la wax écran ko ci kanam bi. nëbb ko kanam bi yoot ndànk bu ko woowee ci xeex ci kaw mu bañ koo wuñ si daw ba jàpp Tapha Tine tànk bu xeex te bu jàppee rek gëm naa ne làmb jeex. yéen géej waay dégg naa kenn nelawatu ndax naan kenn nelawatu instant bi boo demee géej waay fekk ko mu toog ci buntu kër gi di reer wala mu toog di naan caayin wala muy naan gerte lekk gerte. kon da ngaa bëgg a du dara ci. Bombardier paa la incha allahu rabi yàlla dinañu may ndam. Bombardier gën a xam ni paa la. paa la te moom nga bëri loolu mu gis naa ko sikkim bi xanaa gisoo ko yii. tooy. soo baal la ni sikkim ni naayee xanaa. lépp. lépp la indi. boo xool lii ci booy ñaar tafaat kan bokkul ah boo ko qualité Balla Gaye daa bokk kenn qualité si lamb Balla Gaye bokk na kenn qualité Balla Gaye lamb moo fi mën moo fi doole moo fi mën moo fi gën a dal xel moo fi ëpp avenir. fan yooyu dama gis ay stade nga def sa diggante ak Zoss taxaw na. loolu moom koy confirmé wala da nga doon wax rek. man defuma ko de nit ñi ñoo dem monté loolu def ko fépp yónnee ko nit ñee ko monté talu woon loolu maa ngi woon état nit waaw ah, léegi pourquoi pas sax bu ko nit ñi sentiré Zoss duñu bëre Zoss kan Zoss yàgg na fi dëkk mbër Zoss dëkk na fi Bombardier Zoss dëkk na fi ku ne Zoss dëkk na fi Balla Gaye ku ne bi mu xamee ne mënul sotti la toog yam Zoss man ak moom combat bu neex la bu dee lépp ëppuma dara Zoss ëppuma doole ëppuma xaalis ëpp gënuma dal xel ëppuma daraja ëppuma fulla ëppuma fayda ëppuma lenn am naa droit laaj ko ci la yoonu la bu ma neexee dama koy laaj léegi dama koy laaj nit ñee monté xam nga nit ñee monté dugal ko mais man léegi maa koy laaj Zoss dama bëgg ñu bëre parce que lii ma gis nga bëre dal na sama xel dangaa yëpp Zoss parce mu doon bëre Alioune Seye am fa erreur war a rectifier erreur am da koy laaj ko di daa jàpp ni da koy yëpp wala léegi Zoss lan la ma ëpp ci làmb ji instant bi moo ma ëpp tur moo ma lan ëpp tur yow kii dafa dof pour làmb yow xanaa da dof Zoss jamono ji kan bu bëre dafa pour ma wax ay turu làmb turu musique tur tur rek la déedéet déglu naan moo ma ëpp combat moo ma ëpp combat mais jamono ji kan moo ma ëpp tur ci réew mi waxalal yàlla ci làmb bàyyi mag ci làmb naan moo ma ëpp combat nangu naa moo ma ëpp combat nangu naa mais jamono ji réew mii ñu toll kan moo fi gën a influent Ketchup ëpp ko tur ci dëkk bi amul lan la Ketchup di bokk te du neex amul kon maag Zos day neex de bàyyil cadre raw fii ku nit raw na fi Balla Gaye moo raw Boy Niang dellu jël ko dañu wax guy gi moo raw rek rek dellu jël ko. kon da ngay ñaan waa léegi maa koy ñaan saas. ak sévère nag. du ñaan saas boo xam ne ay yolomal de. Zoss dama bëgg ñu bëre saas laa lay ñaan mais ak sévère. bu xeexee non ñeme na xeex ak man. ñeme ko non ma nii de jàkkaarloog man di xeex déedéet mukk si àdduna kenn du xeex ak man. monsieur am na problème Zoss fu mu la fekk ci monsieur Yoro. déedéet. booy man géejawaay laa euh, géejawaay fi ma rampé ba jàll neexuta xuus xam nga dama toog États-Unis nekk samay bagage booy monté seeni affaire dugagu si ay TikTok mu toog mu ne man maa ko def na ma baal naa ko nag jéggal naa ko tooñ na ma tooñ bu garaaw mais jéggal naa ko ndax man yëguma tinu ma monte nañ jox ma monte jox nit monte yónnee fépp ñu ne Ketchup lii dëgg la ma ne leen ah lii du dëgg waaye bëgg naa ko fu ne nii nag loolu moo ma yëkkati lii ba ma bëgg gaa yi fi nekk yëpp di wax laa bëgg jël leer na jaajëf mbokk yi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 Tafatine contre Boignan 2, le choc des titans. Suivez cet événement exceptionnel au Sénégal et partout dans le monde grâce au pay per Rendez-vous sur la plateforme lambdiaspora.com sur pay-per-view event et cochez sur la rubrique live. Vous accéderez ainsi à deux propositions. Le ticket passe pour une personne à 9,99 euros et le ticket passe pour deux personnes à 19,98 euros. Une fois que vous aurez fait votre choix, différents modes de paiement en ligne vous seront proposés, à savoir le paiement avec votre téléphone mobile avec l'application Africa Mobile Money, le paiement par carte avec l'application Pay by Card et le paiement par PayPal. Une fois que vous aurez choisi le mode de paiement qui vous convient le plus, remplissez les informations demandées pour valider votre inscription. Par exemple, pour le paiement avec la carte bancaire. Les informations demandées seront votre adresse email, les informations relatives à la carte bancaire en tant que telle et le nom figurant sur la carte bancaire et le pays concerné. Validez le tout en cliquant sur l'onglet Payer. et le tour est joué. Bonne suite de programmes sur Léoto TV. Tafatine, Boignan 2, un événement de Léoto Production.